wala ñi nekk euh, bitim réew di ñu fi teew ñëpp nag di ci jiital euh, kilifa yi nga xam ne ñu ñu ràññee lañu ci politique ñuy kilifa parti bi euh, docteur Diallo Diop Madieye Mbodj Adja Yacine Fall ak suñu doyen Alla Kane ak mboolem seen militant ak militante yi teew si di nuyoo mbokki presse bi nga xam ne ñoo ñëw couvrir événement bi gën ñoo yombalal jokkoo bi ak àdduna yëpp dañoo woote woon waxtaan wi muy euh, bi njëkk ci suñuy waxtaan gannaaw bi ñu génnee ci élection législative yi bu ma waxee bu njëkk suñuy waxtaan nag mooy ñun en tant que Pastef jëmm joo xam ne day représenter Pastef parce que def nañ fi ay sorties yoo xam ne ñoo ngi ko seq suñu naataangoo yi ñu bokkal coalition Yewwi Askan Wi wala ñu seq ko ak ñi nga xam ne mooy intercoalition Yewwi Askan Wi ak wàllu tey nag dañ fee taxawee baatu parti politique bi ñu bokk muy Pastef les Patriotes war waxtaan tuuti ak askan wi doore waxtaan wi ci jaajëfal askanu Sénégal ci lim ñu may ci joŋante politique yi ñu génn di élection législative yi li ñu askan wi may ñun mënuñu koo natt parce que li génn ci urne yi mënu koo natt tuuti na trop pour natt li nga xam ne moom la ñu askanu senegal may li ñu askanu senegal may ma nga doore ca pré-campagne ba foofu la doore waaye dafa wëy ba ci campagne bi surtout ndax ku suivre campagne électorale bi weesu rek di nga xam ne la askan wi may yeewi askan wi gëw mu ni am na keneen ku ko may ci wàllu mobilisation ci fépp ñu teew mobilisation yoo xam ne ay junni junni junni nit la te ci kenn koo xam ne jox nañ la ñaari dërëm pour nga génn ñëw tertu leader yi nga génn ñëw li ci gënoon yéeme mooy topp ab caravane sur 3 kilomètres 4 kilomètres 5 di daw léeg nga xaar caravane ba 2 heures du matin 3 du matin loolu ñun mënuñu koo xayma mënuñu koo natt amul prix ci ñun ndax politique nag Sénégal fi mu toll nii ñaar la ku dem jukki alalu réew mi randal ci ay milliards milliards wër di fay ay nit ak di leen yëpp ci ay kaar pour ñu dajal la ay mbooloo ak koo xam ne amoo lu dul sa kàddu amoo lu dul sa programme ak sa gis-gis te ay junnee junni nit waxuma la sax di la topp waaye di dajale seen alal di joxe pour nga mun a dox ñaar yooyu moo fi am Sénégal kon ñun ñiy féete ci ñaareelu pàcc bi gannaaw bu ñu santee yàlla dellu santaat ko ndax it du suñu mérite buñ ci buñ ci amee mérite as tuut la ndax nit def na lu ëpp li ñu def ñun ci politique te yàlla mayu ko lii kon dañuy dellu sant ci yàlla gërëm askanu senegal bu baax a baax baax ci kóolute googu waaye décrypter message bi nga xam ne jàngat jàngat ba bataaxal bi nga xam ne moo lalu ci loola parce que du rek ñu ngi lay topp nga naan maa fi nekk déedéet lan moo tax nit di la topp lan moo tax nit bàyyi yitteem di daw sa gannaaw lan moo tax nit dajale alalam yàlla xam na ni am na ay soxla yu jàmp yu mu ko mënoon dugal mu ñëw am lu mu ci comp ne mu ngi koy dugal ci li ngay li ngeen di li ngeen di xeex loolu mu ngi am benn tur benn baat lañ ko mën a nattee mooy yaakaar yaakaar gi nga xam ne askanu Sénégal am na ko ci ñun du suñu jëmm du suñu personnalité waaye projet bi ñu leen gaar bi ñu leen présenté ci juróom ñaari at yi ñu weesu moo tax askanu Sénégal googu la ca bëri wala la ca ëpp laa gëm daa di am yaakaar googu ba di ko manifester noonu mu koy manifester ñu dellu wax liñ doon wax saa su ne bu soobee yàlla askanu Sénégal googu du mus a am gàcce ci ñun yaakaar googu du mus a yàqe yaakaar googu du mus a tas ndax ñun contrat social lañu waxanteeg askan wi mooy dañoo fasante kóllëre ak askan wi daadi di tëddal tëddal benn charte charte boobu nag kenn ku ne am na lu la ci war la ñu ci war ñun mooy li ñuy def saa su ne féete ci côté askan wi di ko xeexal di ko leeral liñ ko nëbb di ko wax lu yàq réew mi di ko wax lan moo tere Sénégalais tey mun a dund dund gu naat ci jamono joo xam ne réew mi naat na loolu nag jàpp naa ni ñun suñu wàll ci contrat boobu ñu ngi koy dox ragaluñu ci ku ñu dóor ragaluñu ku ñu saaga ragaluñu ko ñu pexeel ragaluñu ko ñu sosal wàllu askan wi nag mooy moom it mu taxawe fi mu war a taxawe ndax benn nit du soppim réew benn groupe nit du soppim réew réew donte foo gis ay nit daje il faut mu am njiit il faut mu am ñuy jiite mbir mi il faut mu am ñuy xalaat di nas di teg waaye pour mu sotti il faut ñu dem ba li ëpp ci askan wi ndax mënuñoo dem ba dajale ñëpp nag loolu amul yàlla moo ñu bind ñun ñëpp te pourtant am na ñu ne gëmuñu yàlla kon kenn mënul fexe ba ñëpp ànd ak yow waaye bu ñu demee ba lu ëpp ci aswan wi ànd askan wi am yéeg-yéeg bii ñu am ñaar yooyu daje ndax réew lu koy defar mooy leader yu baax waaye nag wéeru ci askan wu baax leader yu gëm réew mi waaye sësu ci askan wu gëm réew mi loolu mooy defar am réew jàpp naa ni nag loolu meññ na taxaw na màgg na dëgër na looloo firndewu ci lii ñu weesu nii muy élection législative kon ñuy gërëm askan woowu ndax jox nañu majorité ñu foqati majorité bi mënoon nañu doxalee neneen waaye ñaar moo tax defuñu ko benn mooy Sénégal jàmm ci xaj ñaar mooy xeex da koy xeex si ño ca ba ñoree xeex danga koy xeex ca ba ñoree waaye buñ la naxee ba dugal la ci xeex te ñoragul danga ñàkk xeex ba junju doy na boroom xel li tax nag ñu gën a woote waxtaan wi mooy ñun jàpp nañ ni li am am na weesu na il faut ñu wéyee liggéey bi daje woon nañu songu élection locale yàlla may ñu ci loo xam ne kawe na suñu njort ñu woyaat daje songu élection législative ñoom ñu def seeni tappale ba li gënoon a fës ci suñu liste ñu fexe ba dàq ko ci élection bi teewul wag nañu suñuy loxo wër nañu Sénégal campagne nañu duma nañ leen ñu dellu siwaat daal foqati victoire boobu ci anam boo xam ne ñëpp seetaan nañ ko ñu ne muñ ci waajal xeex la bokk du ragal ndax ku ñu xam-xam ni ragaluñ bu ragal di am fële lañ koy seeti lan moo ñu dajale woon ñun waa coalition Yewwi Askan Wi ak ñun intercoalition Yewwi ak wàllu loolu laa bëgg a fàttali Sénégalais yi dafa am solo parce que ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd teg ko ci ay charte charte yooyu nag mooy àtte nit ñooñu seen diggante ak askan yi nga xam ne moom mooy arbitre moo tax saa su ñu a bokkee ci kuréel laata ñuy sori dañuy exiger kuréel gi ñu tëral ko ci ay anam yoo xam ne aw kayit lañ koy bind mu leer nañ lan moo ñu boole woon ñun waaye wi Askan Wi dañu wax ni boo génnee préambule beeg yi ñu wax ak li taxoon ñu daje dañu génne woon ñetti étape yu am solo bu njëkk bi mooy élection local li ñu waxoon ci élection locale yi mooy dañuy présenter benn list dong ñun waa Yewwi Askan Wi ma fàttali ni balaa ñuy dugg ci Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi dañ ko yaataloon waxtaan ak ñépp yéen ñëpp seetaanoon ngeen jamono jooju yàlla def nag mujjul sotti ñenn ñi génn taxawal wàllu ñenn ñi des daal di taxawal yeewi askan wi yeewi askan woowu moom laay wax li ko tënk li tënk ñi ko bokk mooy benn list la ñuy présenté ci élection locale 23 janvier 2022 parti bu bokk ci coalition bi rek jël na engagement ni moom du présenté wala du jàppale beneen liste bu dul liste coalition Yewwi Askan Wi que parti bu nekk nag dina def kéem kattanam pour ñu gagner élection locale yooyu loolu mooy li ñu waxante woon ci élection locale ñu woy ba léegi ne lan moo ñu tënk ci élection législative ñu ne bu ñu eggee ci élection législative dinañu wéyale dynamique unitaire bi mooy coalition bi dinañ ko continuer téye daa fexe ba am benn liste donc nag bu ñuy demee ci élection législative yi te bu ñu yàlla mayee ñu gañee dinañu defaraat assemblée nationale delloo si waat réewum yoon muy état de droit li nga xam ne mooy liberté yi mooy sañ-sañu kenn ku ne ci li yoon maye ak lépp li nga xam ne ay loi yoo xam ne wote woon nañ ko ngir tënk Sénégal yi dinañ ko génne ci senegal waaye dinañu wote aussi ay loi yoo xam ne lim nañ ci lu bëree bëri loo xam ne xajul fii ci waxtaan bi ñu ne lii moo ñu tënkoon ci élection législative ñu dem ba ci biir mu am lu bees lu ci feeñ mooy coalition wallu bi nga xam ne jotuñu woon déggoo ci élection locale yi ay contact am waxtaan am ñu far mujj déggoo nag ni li ñu manqué woon ci élection locale yi dañu bëgg dabu ci élection législative yi looloo andi intercoalition yi wàllu waaye maa ngi des ba léegi ci yi askan wi ñu ne pour élection présidentielle lan moo ñu tënk dafa am solo parce que accord yi may wax yépp nag gannaaw conférence de presse bi parce que lu coalition Yewwi Askan Wi décidé woon la bu yàgg waaye campagne bi tënkoon ñu lii lépp dinañ ko rendre public ba sénégalais bu nekk xam lan moo ñu tënk. parce que ay gor suñuy daje ci politique bay def accord dañu war a am seede sa seede gi mooy askan wi ba ëllëg ku wor walla nga def naka sudul noonu askan wi xam ni ah lii de la gars yi waxante woon moom lii la def. ñu ne kon pour élection présidentielle bi dañuy bàyyi coalition bi continuer exister waaye terewul kenn ku nekk am sañ-sañ ne man nag kat damaa bëgg a nekk candidat ci élection présidentielle bi parce que xam nga élection bu nekk ak réalité am locale ak élection législative élection wu raw gàddu la tasaare doole opposition bi baaxu ci élection présidentielle nag la ñuy wax ni c'est le rendez-vous d'un homme évidemment accompagné par une équipe dajale entre ab ab nit boo xam ne ab écurie moo ko ngémb sol ko xalaatal ko yor ci mikaayam ak lépp ak askan wi te daje gi li ko war a lal mooy programme bi muy présenté askan wi moo tax élection boobu bokkul ak ñaari jiitu moo tax ñu ne bu dee ñëpp tënku nañu daje nañu waxtaan ne ah ñu de yeewi askan wi benn candidat dong la bëgg am ba tey baax na ñu nangu ko waaye bu ñu demee ci élection présidentielle Massamba ne damaa bëgg a nekk candidat Mademba ne damaa bëgg a nekk candidat am na sañ-sañ wi waaye loolu tasul coalition bi coalition bi dañ koy bàyyi mu continuer di nekk ñu de boole ci suñu doole nag pour mën a superviser ensemble élection bi parce que xam ngeen ni élection lu jafe jafe gérer la ci benn kuréel politique donc ndax am na plus de 15 000 bureaux de vote ci Sénégal ak yeneen ak yeneen waxuma la nag fichier électoral bi euh, inscription ak leneen ak leneen ñu ne kon dañuy bàyyi caadre bi mu doon benn cadre unitaire boo xam ne benn ñooy bokk saytu élection bi ba njuñ njaaj du ci am ñaareel bi dina am loo xam ne dañ koy tënk dañ koy tënk ci programme minimal mooy mu am ay poñ yoo xam ne yu ama am solo la yu ñuy bokk ñun ñëpp nangu nii ku fi yàlla tànn rek ci ñun mën nga am leneen ak leneen ci sa programme lu ci yokku waaye poñ yi mënul ñàkk poñ yi mënul ñàkk ci réforme ci wàllu institution ci wàllu économie ci wàllu social yoo xam ne dañ koy tënk bu dee loolu am na nag muy kayit wu dëgër boo xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp te askan wi seede ko lañ ciy teg nag ni bu dee kenn ci ñun gagné na dès le premier tour wasalaam waaye bu loolu amul bu deuxième tour amee kenn ku ne ci ñun dina jàppale ki nga xam ne moom la yàlla yóbbu au deuxième tour ci base nag programme minimal bi nga xam ne moom la ñu tënk pas rek moo ma neex wala waa ji il mu jóge fi waaye ci base programme boobu. lii mooy accord bi nga xam ne accordu yeewi askan wi la dinañ ko publier askan wi yëpp gis ko mu des nag intercoalition yeewi ak wàllu lan moo ñu tënk yeewi ak wàllu xam ngeen ni bés bi ñu waroon déposé liste yi ci boppam dimanche boobu suma ma juumul le 7 mai bés boobu ci midi la ñu jot a am accord ndax waxtaan bi guddoon na xawoon naa jafe waaye négociation politique moo ni demee ba ñu waxtaanee la ñu déggoo ni loolu la ñuy tënk mooy ñaari coalition yi dañuy ànd présente list unique ci département yi buy muy biir Sénégal muy diaspora list unique mooy département boo jël benn rek ci coalition yi mooy porter liste bi waaye ci biir liste bi su dee ñaari candidat la ñuy war a présenter benn bi dina doon bu wàllu benn bi doon bu yeewi askan bu dee wàllu moo ko jiite bu dee safaan ba benn wàllu yeewu dina jiite wàllu topp ci ñu doxalee ko noonu waaye nag coalition bu nekk dina am sañ-sañu moom présenter list nationale am bu bokkul ak list nationale beneen coalition ba loolu mooy li ñu tënkoon également ci li ñu àndal waaye dañu ne li may wax dafa am solo ñaari coalition yi li ñu jël ci engagement mooy benn kenn ku ne dinga nga respecter bi nga wax ak ñeen ñi ka ca des parce que xam ngeen suñu xasee ba déggoo

boo xam ne bu dee yàlla may nañu majorité li may wax dafa am solo de parce que ñëpp xam nañ ne assemblée balaa nga fay mun a def li nga bëgg a def dëgg nga yor majorité fi mu ne nii nag amaguñ ko ñàkkaguñ ko foofu laa ci yem kenn amagul majorité assemblée bu soobee yàlla le 14 septembre dinañu xam ku am majorité ak ku ko ñàkk. waaye li wéer ba wóor mooy majorité kenn du ko am Sénégal ndax majorité benn député du majorité on ne gouverne un pays ne pa pas l'équilibre d'un pays équilibre réew mënul tënku ci benn nit benn député moo tax ak fu ñu munti jaar suñu amoon majorité de dix députés sax amuñu majorité waxuma laa benn député kon ñu ne bu dee am nañu majorité benn groupe parlementaire boobu ñuy def bu dee am nañu majorité wax ji dama bëgg leer de bu dee am nañu majorité loolu tubaab day wax condition la woon benn groupe parlementaire bi ñu bëgg a def dina am ay réforme yu ama am solo yoo xam ne dina ko def ci base euh, programme minimal commun de législature mooy li ñu tënk ñun ci ay loi ñu bëgg a voté waaye li ñu tënk ñun également ci ay commission d'enquête parlementaire yoo xam ne bëgg nañ ko samp ñu ne it ñaari coalition yi bu weesoo loolu nga xam ne biir assemblée la parce que biir assemblée dañu ne ñaari coalition yi na ngeen ma déglu bu baax askanu Sénégal dañu ne ñaari coalition yi jël nañu engagement ni à ne faire aucune compromission législative avec le pouvoir avant et surtout après les élections loolu dafa leer de mooy benn ci coalition yi du dem di négocier ak nguur gi moo xam avant waaye surtout après bu ñu falee ba noppi kenn du négocier ak nguur gi groupe parlementaire opposition ferme lay doon pour ne pas dire radical loolu mooy li ñu déggoo woon loolu nag du ci benn fan du ci benn weer waaye durant tout le mandat lay doon loolu la waxante député yi ñu am assemblée nationale moo xam lu lu am wala lu yi am amu ci benn ci ñaari groupe yooyu boo xam ne dina dem di négocier ak Macky Sall loolu accord la boo xam ne mi ngi nii te ñaar ñëpp dañ ko signé te bii dinañ ko rendre public ñu ne bu weesoo loolu nag kenn ku ne am nga sa sañ-sañ parce que accord bi ñu def accord élection législative la woon point bar foofu la yem bu loolu weesoo nag. kenn ku ne nooy tojee sa bopp janax yow yaa ko xam loolu la ñu waxtaanoon su ngeen gisee ma jël temps pour leeral li dama bëgg askan wi xam lan mooy li ñu tënk ñun suñu biir yeewi askan wi waaye ñun ak wàllu également élection ñaari élection yi wees na man pour man page boobu tourné na su ma nee tourné nag tekkiwul li duñu liggéey ci la ñu peuple bi jox ci assemblée dinaa ci ñëw bu si kaname nañ ci liggéey lu rëy rëy ndax bu ñuy doon ay benn benn député ci assemblée la ñu liggéey ba askan wi gis ko tey bu ñu demee ba yàlla may ñu lim ñu may juróom ñetti fukki député ci biir assemblée xam ngeen ni assemblée nar naa xumb de ñu ngi doog am assemblée nationale rek te ña ngeen di gis ñu nekk assemblée ñoom mandargal rek waaye ñu ne ci gannaaw. laboratoire bi ñi yor liggéey bi di ko liggéey ñoo ëpp téeméeri junni yoon moo tax assemblée bii dinañu xam ni assemblée am nañ ko dinañu xam lan la assemblée di jëriñ moo tax man biñ ci génnee bi ñu waxtaanee suñu biir man dama am position boo xam ne sama position la wala suñu position la ñun Pastef dama ne du ma seeti kenn duma woo kenn duma ma négocier kenn ku leen ne Ousmane Sonko woo na ma di wax ak man ci nu may demee seen groupe wala yu mel noonu loolu amul de man yëfu tappale yu bokkuma ci kenn ku ne da demoon dajeeg askan wi ne man opposant la woteel leen ma ba askan wi xëy am lu mu la jox bëri na néewul am na lu la askan wi jox ku ci 25000 sénégalais woteel ba ku ci 52000 sénégalais woteel wala 59000 am na lu la askan wi jox. décision boo jël nag yow ak askan woowu la ñun suñu yoon newu ci te décision bu waay jëlit respecté nañ ko wax ju bëri ji jaru ko lay yu bëri yi jaru ko kilifa day mat kilifa sañ li muy def dem toog jàpp ñàmburam man de Ousmane Sonko du ma commenter décision politique bu beneen leader parce que sama yoon newu ci waaye xam nga Macky Sall ndeysaan président de la PR defe naa dafa jaaxle ba xamatul fu mu ne ndax looy def boobu ba léegi amoo ci résultat 2012 ba léegi lan la nekkee ku ñu fal meer ci opposition mu recevoir le palais am lu mu yëkkati jox la ne la ñëwal fekk si ma di essayer suruxlu ay député pour récupérer leen di dugg ci parti naan day tas parti di récupérer ay nit waaw balaa élection locale yi ñaata nit la récupérer teewul élection locale yi ñu duma ko diggante élection locale ak élection législative législative yi ñaata nit la récupérer waxuma la rek les hommes politiques waxuma la rek les hommes politiques waaye même yeneen kilifa yeneen ñaata nit la récupérer tey la waalo gën a ay ndax duma gi ñu ko duma ci élection législative yi defe naa bi Sénégal di Sénégal ba léegi musul am kon ku yaakaar ni jël nga benn nit foog ni yóbbu nga ay nit ñu bëri yow benn nit boobu rek nga yóbbu yóbbu woo juróomi nit yu wër nit kooku moo tax loolu amul solo li am solo mooy dafa am loo xam ne door na moom amul xelu seetlu loolu te loolu gannaaw yàlla dara mënatu koo téye mooy ma nga doore nag 2019 nit ñi seetluwuñu bu baax 2019 nee na 65 pour cent la jóge ñëw 59 pour cent boo xam ne ñëpp xam nañ ni matu ko ñu jóge foofu mu ñëw élection locale ñu ne leen ah waa ji wàcc na en deçà de 50 pour cent génne ay statistiques ñoom ñu génne benn carte Sénégal peinture ko en marron di manipuler Sénégalais yi ñu leen nañ dem ñëw élection législative su ma juumul mi ngi 40 entre 42 et 48 pour cent bu ñu demee présidentielle bu dee moom jàll na soo amee 30 pour cent wala cinq pour cent dina ma jaaxal bu soobee yàlla loolu moo am solo moo tax ci loolu la ñuy wax fi mu toll nii. lañ ci wax lu simple la mooy Pastef ma ngay des ci coalition Yewwi Askan Wi di coalition bu ama am solo boo xam ne dem nañ ba ñi ko séq di ay leader leneen boole ëpp na politique ay relation juddu na ci miinante am na ci soppante am na ci jaar nañ ci épreuve yoo xam ne kenn ku nekk natt na moroomam ba am lu mu gis ci moom lu ko doy sëkk coalition googu dépassé na léegi politique ma gëm nag ni Pastef dafa am taxawaay bu mu am ci coalition boobu ma réaffirmer ko ne tey la Pastef gën a bokk ci coalition Yewwi Askan Wi tey lay gën a sonn ci lépp la Yewwi Askan Wi di def tey la ci gën a liggéey pour ñu gën koo dëgëral ak décision yu mun a ñëw yi nga xam ne day concerner individuellement les acteurs de Yewwi Askan Wi ñaareel bi Pastef ci biir Yewwi Askan Wi day gën a des ak gën a dëgëral intercoalition Yewwi Wallu ndax intercoalition boobu tey mooy majorité ci biir Sénégal majorité électorale majorité politique waaye mooy majorité sociologique bu amee lu ko nar a yàq du jóge ci Pastef ndax ñun ay gor lañu ñun ñu ñàkk ci politique xam ni lii buñ ko defee ñàkk waaye des ak suñu ngor moo ñu gënal wor am dara moo tax léeg-léeg ne ñenn ñi dañ naan ñun duñu ay politiciens li ñu diggante woon ak intercoalition bi dinañ ko respecter ndax biir assemblée nationale am na ay proposition de loi yoo xam ne dinañ ko déposer bokk na ci yooyu mooy nu ñuy fexee ba kenn ku nekk ci Sénégalais yi rawatina ñi nga xam ne dañ leen écarté te tegewul fenn mën a delloo si waat seeni droit civique ba ñu mun a compétir comme tous les Sénégalais parce que Sénégalais yi ñooy tànn seen président te dinaa ci ñëwaat loolu également bokk na ci projet de loi yi nga xam ne ak commission d'enquête parlementaire yi nga xam ne waxante woon nañ ko ak sénégal yi man mi di wax ak yéen ay fan a ngi fan a ngi nii maa ngi tëju di ci liggéey mun naa leen ne am na déjà nu mu tuuti tuuti une quinzaine de projet de loi ak au moins sur une vingtaine de thématiques yoo xam ne commission d'enquête parlementaire war na cee taxaw dinaa ci dellusi loolu ci suñu taxawaay lay doon ci biir coalition bi ak intercoalition bi dinañu woote ci fan yi di ñëw en tout cas balaa weer wi di dee bu soobee yàlla ñi ñu fal ñëpp député dem lëloog ñoom ñetti fan wala ñeent wala juróom ci li nga xam ne formation lay doon pour préparer leen en tant que député waaye loolu première formation rek la parce que day doon lu continue dinañu waxtaan ba tënku ba déggoo nag ci naka lañuy ñuy duggee assemblée nationale ci groupe parlementaire bi wala ci groupe parlementaire yi ak lan moo war doon suñu taxawaay biir assemblée nationale ñu ngi ciy liggéey moo tax ngeen gën ñoo dégg parce que dafa am jamono yoo xam ne jamono liggéey la lépp loo xam ne daal engagement la bu ñu jël ci intercoalition bi ak ci coalition bi dinañ ci taxaw waaye bu loolu weesoo nag li nga xam ne suñu programme la ñun parce que nag mbokk yi nañu xam ni fukki weer ak juróom ñett moo dox suñu digganteeg élection présidentielle fukki weer ak juróom-ñett loolu tuuti na torop moo tax dañuy jublu aussi ci liggéey boobu te ñaari dàqantewul ndaxit ku nekk Sénégal rekk xam nga ni bu soobee yàlla ni nga xam ne moom rek ay dogal moom rekk mooy dogal léeg-léeg nag nit beew ba fàtte loolu ñu jay nit ba mu fàtte loolu wala ñu jox ko as daggitu pouvoir nguur mu fàtte loolu waaye yàlla rek mooy dogal moo tax ma ne bu soobee yàlla moo ma di dogal man mii de Ousmane Sonko candidat la ci élection présidentielle 2024 incha allah bu ma ci génnee ndogalu yàlla dama naan bu ko sama parti nangoo parce que dama bokk ci parti boo xam ne dafa am nu muy doxee ñu am ay règles d'investiture kenn ku ne ci parti bi am sañ-sañ ne candidat la te bu boobaa dañuy def primaire waaye li mu jëm ci sama bopp man am naa sañ-sañu wax ni te sénégalais yépp nag defe naa su ma ko waxee sax bettul kenn ci Sénégal amul benn sénégalais boo xam ne mi ngi laam-laame ndax kii dana nekk candidat 2024 am déet ndax it tey jii ci opposition Sénégal ku ci présenté woon élection présidentielle 2019 rek mel man maa fi nekk opposition ba tey loolu la yàlla dogal ñeneen ñi kenn ki nee na bàyyi na politique ñaar ña dem nañu fa ngeen xam donte ñoo àndoon signé ñun ñëpp ab charte ne du reconnaitre reconnaître légitimité président Macky Sall au lendemain bi ñu bi ñu génnee ci élection ba te yàlla may ñu nag mu woon première élection présidentielle mu may ñu loo xam ne kawe na suñu jot boobook léegi ah su doon benn la man gëm naa ni yàlla ful na ko juróom wala fukk ndax ci campagne lañu jóge nag ku àndoon nag ñu ci campagne ak ku toogoon di ko seetaan ci réseau sociaux yi xam nga fu ñu toll Sénégalais yi ñu ngi ciy sant yàlla moo tax ma ne bu soowee yàlla candidat la ñuy doon pour élection présidentielle 2024 candidature boobu nag dafa am lu mu ànd ak loolu mu ànd ak nag dañ ciy waxtaan ak Sénégalais yi waxtaan ceeg militants yi waxtaan ceeg sympathisants yi parce que dafa am solo orientation yi ñuy joxe mooy tegtal yi ñuy jox militants yi ak sympathisants yi ak bépp sénégalais boo xam ne dégg nga li ñuy wax gis nga li ñuy xeex te gëm nga ko ndax 2024 tànneef gi ñu war a tànn weesuwul ñaar diggante. ndax dañuy bàyyi suñu askan continuer nekk askan woo xam ne dañ koy yor ci lépp alal goo xam ne doo ko dugal fi mu war a dugg ci jaay alalu réew mi ci jamono jooju ci noot doomu aadama yi ci duma reye ak tëjaate ci yaatal ay programme yoo xam ne dëppoowul ak suñuy gëm-gëm ci biir réew mi ak ci jaay pasar pasare lépp loo xam ne sénégalais waroon ci mun am yaakaar wara mu amal leen njëriñ wala ndax dañuy tànn loo xam ne day lalu ci souveraineté ak patriotisme mooy fexe ba tee suñu réew li nga xam ne yàlla jox nañu ko ci alal te macha allah mu bari loolu ñu teel ko suñu bopp bañ koo bàyyi tubaab yeeg naar yeeg ñeneen ñëw jël ko yóbbu boole kook nag yóbbu yi ci liggéey. ndax liggéey mooy defar réew kenn ku ne xam ni sacrifice la jële fi nger ba kenn dootul sañ saña saña jël dërëm bu mu moomul ci askanu réew mi waaye dërëm gu ne nag ñu dugal ko fañ ko war a dugal xam lan mooy priorité ñaari modèle yooyu rek moo fi ne ci loolu lañu war a tànnee moo tax rendez-vous boobu ci rendez-vous yi gën a am solo ci histoire Sénégal la bokk buñ ko ratee rek nañu xam ni cinquante ans yi di ñëw wala lu ko ëpp dinañu continuer nekk ci jafe-jafe ak ci toroxtànge ak ci nooteel kenn ku ne di ko jooy fa nga koy jooyee te kenn du am saafara moo tax ñuy joxe tegtal dañuy bañ ñu ne suñuy militant moo tax yow militant bi yow militante bi yow mi di sympathisant ak sympathisante yow mi citoyen boo xam ne milité woo fenn waaye am nga yëg-yëg ndax nag Sénégal wax ji na bëri na trop waaye sympathisants yi ñoo ëpp militants yi de ku fi falu rek sympathisant moo la fal ndax ñëpp ñu dem jënd carte ci parti politique moo tax ñëpp laa waxal ku fi nekk ak ku ne diaspora fàttali leen ni rendez-vous bii rendez-vous bu historique la rendez-vous boo xam ne moomaat suñu bopp la te mu dépassé Sénégal tey muy muy combat boo xam ne combat africain la may félicité di encouragé suñu mbokk Mali président Assimi ak ñi mu àndal wax leen ni siggil nañ ñu ñu ngi siggil te am nañu suñu jaajëf am nañu suñu encouragement am nañu suñu jàppale ba fu ñu dooleem combat bi ñi ko porté dafa bëri ay homme politique ñi ngi juddu ñi ngi meññ fépp ci Afrique francophone parce que problème bi nag Afrique francophone la gën a am mais foo dem ci Afrique francophone peut-être dimension bi mu am Sénégal amagu fa ay profil lañ ciy meññ muy lu am solo waaye du rek ci politique jëlal la millier de laar am na artistes yu gore Afrique gis nañ taxawaay Salif Keita gis nañ taxawaay Alpha Blondy gis nañ taxawaay Tiken Fanja Koli Tiken Jah Fakoly gis nañ taxawaayu les le mouvement hip hop africain bu Sénégal gis ngeen taxawaayam gis nañ yeneen artistes yoo xam ne ñoom ñëpp tey dugg nañ ci mouvement bi xam nañ fi ñu jëm ñu leen di jaajëfal ñoom ñëpp ndax loolu la ñuy xaar ci lider leader d'opinion mooy xam fu sa intérêt réew nekk nga ñeme ko ndax ragal féete nag du ma ne day xañ wërsëg de waaye dama naan yenn saay dafa xaw bokk tuuti ci naafiq koo gis rek am na fu mu féete da koo fësal wala fësalu ko ndax tënku sa bopp toog ne man sama yoon newu ci ci ñàkk ci ci ci ci féete la bokk ndax nu mu bokkee ci féete mooy foo gis ñaar ñu tongoo am na ku tooñ ka seetaan nag dafa jàppale ko tooñ waaye li ñu sant ñun muy ci diine muy suñu aada boo fekkee ñu tongoo nga gis ku tooñ danga ko naan sëñ bi yaa tooñ daal di téye loxoom moo tax neutralité ay waxu tappale la kon mouvement boobu nga xam ne am na yow militant bi yow sympathisant bi bu la kenn nax bu ñu trompé ci combat komba bi dootul nekk ci réseau sociaux yi diw saaga na sama leader ma saaga ko diw xas na suñu parti ma xas ko buñ leen yóbbu ci yooyu am na lu ëpp solo loolu maa ngi ciy ñëw buñ leen bu leen tardé ci loolu xaste ak saaga téewul projet bi li tubaab naan dafa mel ni bëgg a téye géej ak say loxo moo tax bàyyi leen ci lool loolu lañu ñu mëne waaye dinaa leen wax ñaar ba ñett yoo xam ne tey ci fukki weer ak juróom-ñett yi ñu jëm mu war a doon yitte kenn ku nekk ci ñun ñu ciy taxaw saa su ne di ci liggéey saa su ne ba ca njëkk mooy defarwaat defarwaat nag mooy defar parti bi ci fii ëllëg ak wala gannaaw ëllëg dina am lu ñuy génne ci ay circulaire ay notes yoo xam ne ci loolu la jëm ñaareel bi mooy préparer wu préparer ndaw ñi surtout fexe ba ñu war a bindu ñëpp bindu ji fexe ba ñu war a bindu ñëpp bindu ji waaye gannaaw ga ñu fexe ba jël seen carte électeur mooy dugg ci àll bi ci koñ yi ci ruq yi ak ci ruqaan yi fu nekk ngeen taxawal fa ay cellule gis nañ yéen a ngi koy def weekend bu ne ci Sénégal yépp maa ngi gis ngeen ciy liggéey waaye na gën a tar parce que loolu mooy liggéey bi loolu bu ngeen ko defee ñu boole kook defaraat suñu ngemb bu baax ci biir parti bi dinañ ci boole it fii leeg nawet gi di jeex gën saa gudd mois de novembre bu soobee yàlla dinaa entamé man dinaa door benn tournée nationale ci biir Sénégal yépp tournée boo xam ne du benn département du ci mucc lañu jàngat nag ci élection locale yi ak élection législative yi mooy dëkku taax yi mokk na ba noppi dëkku yi ñoom mënu suñ fa gañe dara bu ngeen seetloo même département yi nga xam ne ñoom moom lañu ñu dañoo ñàkk dëkku taax yi Louga dañoo nàkk Louga commune Mbour dañoo nàkk mbuur commune Kaolack dañoo ñàkk Kaolack commune Kolda noonu donc liggéey bi fu mu nekk léegi ñun ñëpp xam nañ ko mooy dugg ci àll bi waxtaan ak suñu mbokk àll bi parce que ñoom lañu ñu di manipuler ci ay mbirum xaalis ak yeneen ak yeneen moo tax tournée bi naam dinaa def tuuti milieu milieu urbain yi waaye lu ci ëpp moom àll bi lay doon te dinañ ko def ci yoo xam ne day lalu ci nu mu tuuti tuuti fukki weer ci juróom fukki weer ak juróom-ñett yi nga xam ne moom lañuy ñuy dëgmal waaye nag mbokk yi lii su ma ko waxee dinaa leen wax nag wax naa leen li ñu war a def. waaye su ma ko daaneel daa leen wax nag li nga xam ne mooy ay pexe yoo xam ne ñu ngi koy fexe subaak ngoon guddeeg bëccëg pour essayer dal suñu kaw ak pour essayer bloquer yàq projet bi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey boobu ba léegi yàlla def ci lim ciy def ndax su ngeen fàttalikoo bi ñuy door kenn xamuñu ci senegal ba mu daj 2017 ba ñuy campagne dañ doon wër ci marché yi di jeex nit ñi pour essayer am quelques personne ñuy waxal 2019 gis ngeen li xew 2022 nag moom tabarfakal la projet boobu nag lañu bëgg a fexe ba gàkkal ko ña ko bëgg nag ñaar ñii la nguuru Macky Sall la ak nguur gu ñuy wax France nguuru Macky Sall ak nguur gu ñuy wax France ñoo ne Sénégal de ñépp mën nañ fi falu ba mu des Ousmane Sonko ndax fu mu bëgg a jëmee jëmale senegal baaxul ci ñun bu dee nguuru Macky Sall nag lañu ragal yëpp xam nañ ko ndax ku ñu jox réew jamono lu mat fukki euh, fukki fan ak fukki at ak ñaar nga liggéey fa li nga fi liggéey ci naka sudul noonu boo tëddee doo nelaw te yaakaar nga ni boo fi jógee musiba dal la moo tax toujours la ñuy bëgg woon ñoom mooy ñoom seen fulla gi ñuy wane ci ñàkk nekk ci dëgg moo ëpp doole fulla gi ñu war a wane ñun ci nekk dëgg gi ñu nekk dëgg xam nga ndax sénégalais yi dégg nañ li ma wax ñépp xam nañ ñu nekkuñu ci dëgg yoruñu réew mi ci dëgg alalu réew mi randal nañ ko lii jaay nañ ko tubaab yeeg ñeneen ak ñeneen tëj nañu ay nit ci loo xam ne du yoon duma nañu ay nit ci loo xam ne du yoon nañu ay nit loo xam ne du yoon kon loolu lan moo gën a garaaw ci ñàkk nekk ci dëgg waaye malgré tout moom bëgg nañu gëmloo ni moo ñu ëpp fulla ñun gëm nañu ñoo nekk ci dëgg ci yére gu ñu am ci réew mi ci jàmm gi ñuy dawal ci réew mi ci bëgg-bëgg gi ñu am ci réew mi ak ci Afrique dama ne bu dee loolu am na ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp moo tax pexe yi bëri na weer yi di ñëw kenn ku nekk na fagaru waajal boppam takku ndax ña ngay pexe ci wàllu terrorisme wàllu terrorisme fabriqué nañu seeni dossier yu leen neex jàpp ay nit barki démb rek kenn ci ñi ñu jàpp naan dañ leen di tuddee xawma ma lan woote na de la prison ne fi mu ne nii bés bu ne dinañ ñëw def leen pression ne leen changer leen seen déclaration wax leen rek ni Ousmane Sonko moo ne suñu gannaaw moo ñu yónni moo ñu defloo moo ñu transféré xaalis bi bu ko defee ñu yóbbu leen ci procureur ou arrangement démb rek tey wax naa ci ak ma wax sénégalais nii ndem si yàlla François Mancabou la tax ñu torturer ko ba bakkanam jaar fa li may wax nii ay ñi ko jege ñoo ma ne moom moo leen ko wax ñu ko jege ci ay conseillers ne dañ ko ne il faut nga signer PV boo xam ne da ngay wax ni yow da ngay liggéey ak Ousmane Sonko. que sooy dem Casamance d'ailleurs moom ngay dem seeti pour jël ay instructions kay yow en tant que expert yaa doon organiser moo tax daaw bi ñu buggee dugg këram ñu amoon jafe-jafe yow yaay woog Momo nga xam ne ci samay garde port la di ko jox ay instructions parce que yow xam nga suñuy technique mu lànk ne leen lii duma ko mës a signé parce que mësumaa gis Ousmane Sonko lu dul ci télé xaw ma ko. musuma wax ak moom ci téléphone te man homme d'honneur la ci deret ak ci formation kon duma ko signé looloo andi toroxal yi ñu ko toroxal ba bakkanam rotti may seere ci kanamu famille am ne ñoom ñëpp war nañoo am fierté ci nit ku mel noonu yàlla ma tiim xam ne ni musuma gis François Mancabou waaye ñaanoon naa yàlla mu daj dajale ma xamle ma ak nit ñu mel noonu parce que réew néew na léegi ci senegal ña ngay fenk dossier terrorisme bis bu ne ñu jàpp benn nit yokk ci ña ngay fenk dossier rébellion déggoon ngeen fii Ousmane al naka Diatta Alcoussine jaata Kabeli ñu dem jël ko ne kooku ñoo ngi koy togg pour fexe ba avoué ko ay mbir ne ko waxal ni yow am nga ay lien ak Ousmane Sonko ña ngay fenk dossier 94 milliards ndax ñoom avocat yi ñu dem di di saisir sax ay ay francs ak yooyu xamuñu ni man yéeg naa ko dossier 94 milliards dossier siif dem nañ ba xam ni benn avocat bu mat avocat Sénégal du dugg siifu ñàkk fayda ñu dem di uti ay avocat France te consulat bi ci boppam kuy liggéey ci consulat bi moom mooy porter loolu ci dossiers yoo xam ne ne nañ c'est des dossiers privés ña ngay waajal loolu également façon dossier bu ne ñu ngi koy waajal nee nañu xaj nañu léegi Ousmane Sonko immunité parlementaire donc saa su génnee di wax dañoo am seen benn laboratoire boo xam ne kàddu gu ne ñu ngi koy saytu pour ban kàddu la ñu mën a wëlbati dem tribunal pour am diffusion de fausses nouvelles wala diffamation parce que xam ngeen lan moo yitte bi du jàpp Ousmane Sonko tëj ko kaso de ndax Ousmane Sonko biir kaso moo gën a nekk xal nag Ousmane Sonko ci biti du loolu mooy seen problème seen problème mooy nu ñuy fexe ba am benn condamnation même su dee au sursis pour que Ousmane Sonko dootul nekk candidat en 2024 moo tax ma ne kenn ku nekk ci militants yi ak militantes yi na fagaru waajal boppam parce que Macky Sall waruñoo ëpp fulla bu loolu amee rek mooy li ñuy woote ci souveraineté bi ñu bëgg ñun indépendance véritable bi ñu bëgg ci suñu réew moomaat suñu bopp bi ñu bëgg kon loolu du dëgg si ñun li muy def yëpp nag mi ngi ko lal ci ñett ba ñeent mu ngi ko lal ci police wala ñiy commandé police mu ngi ko lal ci gendarmerie wala ñiy commandé gendarmerie mu ngi ko lal ci benn groupe magistrat boo xam ne ñëpp xam nañ leen waaye mi ngi ko lal ci benn parti média bi nga xam ne saa su ne ñu xëy jox leen ne leen bind leen lu bon ci Ousmane Sonko saa su ne ñu def gros titre bind lu bon waaye c'est peine ndax koo xam ne yaa ngi koy fexeel boobu ba léegi tuumal nga ko lu ne yàq nga deram te su génnoon léegi ci ci taxaw ci trottoir bi meeting am fii nga war a xam ni sa pexe na na sax na waaye buñ leen xeeb ci seen i pexe rawatina nag bu ci France duggee gis nga suñu toogee Sénégal. bay wax naan France kii la bëgg comme candidat kii bëgg ko comme candidat rek wane na ñun tardé nañu. loolu doo ko mës gis ci pays yi nga xam ne Angleterre moo leen colonisé woon amul Nigéria amul Ghana amul feneen suñu demee ba journaux français yi nga xam ne ñooy porte-voix de la politique France-africaine ay le monde diplomatique RFI France 24 ñoom ñëpp ñëw Sénégal naan dañuy dem ci benn affaire privé di interviewé wala def ay article naan la France ne veut pas de Ousmane Sonko eh, et cetera veut pousser Macky vers ceci nangam nangam ça veut dire que ñun duñu duñu réew bu indépendant est-ce que France bu amee élection am na benn sénégalais bu am sañ-sañu toog fii naan ñun de Sénégal diw diw est-ce que président Sénégal sañ na sax naan man diw laa bëgg mu nekk euh, président de la République en France lan moo tax ñun ñu ñàkk fayda ñàkk fulla ñàkk personnalité ba tey ñu ñuy patam patamee suba ngoon loolu mooy laaj bi dem nañ sax bañ ne seen dernier article bi ñu bind nee nañu Poutine gagnerait à se rapprocher de Sonko ma feddali benn mbir gis ngeen ñun ñi amul benn benn benn benn puissance étrangère bu nekk suñu gannaaw amul benn benn réew étranger bu ñu amal relation benn président en exercice bi moo mës a waxal directement président africain bii la muy Guinée awma benn lien muy ñaari Guinée yi bokk awma benn lien avec une puissance étrangère waaye nag ma wax lu leer tey jii su mu mënoon dajeeg Poutine Poutine suba suba suba su ma amoon occasion dajeeg Poutine damay dem dajeeg moom waxtaan ak moom parce que je suis homme indépendant su ma mu doon dajeeg Biden dinaa dem dajeeg moom su ma mu doon dajeeg Buhari dinaa dajeeg moom te bu ma demee dañuy toog bët ak bët waxtaan ku nekk wax xalaatam foofu la yem ku ma mën a dajeel dinaa dajeeg moom man duma ku ñuy orienté wala ku ñuy wax kooy waxal ak koo dul waxal je suis un homme libre indépendant dans un pays supposé libre et ba tax ñuy wax militants yi ak militantes yi nañu xam ni lii lépp lu muy gën a firndeel mooy candidat France ñëpp xam nañ ko ñi fi France teg xam nañ leen la ñu liggéeyal France xam nañ ko ñun nag duñu candidat France tey àdduna du dox ba ñu dem los gombaanu di sukk ci kanamu France àdduna du dox ba ñu sukk ci kanamu benn réew ci àdduna teyit na leer ñun du peuple français la ñu amal problème déedéet biir France am na ay nit ay homme politique ay universitaire ak ñeneen ñoo xam ne discours bii ñuy wax ñun moom la ñuy wax biir France am na jarul ma leen di cité xam ngeen leen am na ci ñoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom suñuy kuréel daje nañu ñu ngi waxtaan kon du problème mu peuple ak peuple parce que sénégal yi dañu gaaw ci raccourci mais problème mu régime yi fi nekk ci France politique bi ñuy doxal duñu nangu mu woy fii biir Sénégal moo tax li may daanelee mooy waxaat ko France. nañu génn ci suñuy mbir 2019 dama dañu génn ci élection bi ma ne ma ne waa France bu dee am ngeen dégg-dégg di ngeen xam ni lu juddu biir Afrique caaxantewu ko xoolaat leen seen bopp bu ngeen buggee continuer am des relation ak Afrique lu ko may di ngeen génn Afrique ci anam goo xam ne du gën ci yéen dafa mel ni boobu ba léegi France dégguñu moo andi li xew Mali moo andi liy xew jamono ji ci senegal moo indi liy xew Tchad mooy indi liy xew Guinée mooy indi liy xew fépp foo xam ne Afrique boo xam ne France moo ko dumee woon lii lañu bëggoon waxtaan ak mbokk senegal wax leen ni desorme nañu xam ne ñi war a liggéey yépp dinañ ko continuer liggéey waaye dañoo def kap ci 2024 te bu soobee yàlla ñaan nañu yàlla te am nañu espoir mooy yaakaar gu rëy ni bu soobee yàlla dinañu gagné élection boobu. li may daanelee nag question d'actualité la mooy fan yi yëpp ñu ngi wax lu jëm ci hôpital de Dantec Sénégal dafa bindoo noo xam ne bu dara xewee rek kenn ku ne day bëgg nga wax ci jamono ji mu bëggee nga wax donte nekkuñu woon fii sax ñu ngi doon suivre li xew yëpp ci hôpital ba li ma ciy wax mooy bu njëkk bi. dégg nañu version yu bëree bëri bari ci mbir mi dégg nañ ni gàllankoor yu bari dina dina am ci tëj googu nga xam ne tëj nañ ko ci hôpital bi te waajaluñu ko waajaluñu ñu fay liggéey waaye waajaluñu it ñu fay fajoo loolu moom dafa bokk ci amateurisme ak cuune ak tiit ndax dañoo am ay gouvernants yoo xam ne bu ñu leen nee ay milliards a ngi nii rek dañuy tiit wax nañu ci gàllankoor yi muy indi ci ñi nga ñi nga xam ne dañ fanaan def formation ci médecin yi wax nañu ci li nga xam ne ay patient la yoo xam ne fa lañ doon fajoo xëy xëy ñu leen mënatoo fi fajoo te waajaluñu leen fa lañu mën a demee faju ji bokk na ci argument bi gouvernement doon wax sax dégg naa ñu naan li ëpp ci ñuy fajoo Dantec du waa département Dakar moo waxtaan ak ay médecin ñu ne ma am na étude bu ñu def boo wane ni 60 pour cent ñiy fajoo Dantec waa département de Dakar la kon wax jooju taxawul wax nañu wax nañu wax nañu débat technique bi nag man du ma médecin docteur Diallo Diop a ngi nii moom a gën a xam yu mel noonu te nañ ci dellusi bu ñu paree dajale li ñuy dajale yépp waaye damay wax ci li nga xam ne moo jëm ci droit ci état ak ci administration gis ngeen Sénégal li may ñaan Sénégalais yi def ma leçon de morale à personne waaye li may ñaan Sénégalais yi mooy ñun ñëpp nañuy góor góorgóorlu di jàng xeex lu suñu yoon newul su ma nee lu suñu yoon newul nag mooy loo xam ne du suñu intérêt personnel immédiat parce que lu bëree bëri bëri ci Sénégalais yi balaa ñuy mën a yëngu rek mooy la ñuy def ci loraange dal na seen kaw mais tant que dalul seen kaw les mêmes ñooy nekk di yuuxu di xeex ñoom Guy Marius ñoom Ousmane Sonko ñoom mais dafa mel ni li ci bëri du yëngal Sénégalais su ngeen gisee ma wax loolu nag mooy gis ngeen euh, anam yu mel nii dafa yàgg am fii moo tax man bi may nekk député à l'Assemblée nationale. dinaa leen liiral benn bataaxal boo xam ne dama ko bindoon tontuwuñ ma ba léegi nag ndax lii ma leen di won nii yëpp ay question écrite yu ma bindoon la may nekk député yenn yi tontu nañ ma ci yenn yi tontooguñ ma ci te fan yi di ñëw dinaa commencé def ay live di delloo askan wi li nekk ci lii lii mi ngi ci pétrole bi lale mi ngi ci phosphate Matam bi leneen ngi ci barrage Affiniam bi lii mi ngi ci usine de fabrique de de farine de poisson yi amul secteur bu ñu bàyyi woon lii lépp ay question écrite la ba ci caaroy 44 amul lu ñu bàyyi loolu moo newoon suñu taxawaayu député wala bokk na ci ndax li bëri nit ñi cinq minutes de temps d'antenne bi ñu daan am lañ doon gis bii bi ma ko bindee dama interpellé gouvernement bi ne ko ah ñun de gis nañ ni am na ay suuf yoo xam ne état bi moo ko moom suuf yooyu amoon ay bâtiment yu ci nekk ngeen xëy xëy jaay ko bokk na ci site bi nga xam ne moom fa la gare routière pompier newoon titre foncier 10 069 DK ak 10 376 DK ngeen xëy xëy daal koy jaay benn société marocaine bu tudd Adowa ba léegi foofu la mbiri ne furus ngeen jëlaat ay kër yoo xam ne état du Sénégal moo moom sikap tabax ko gannaaw assemblée nationale ngeen jël ko jaay ko ay politiciens ci ay prix yoo xam ne kenn xamul lu mu doon ngeen jëlaat fu ñuy wax terme sud daaw daaw jéeg gis ngeen bi ñuy xeex fi ñu jël ay pères de famille ci biir nawet bi génne leen sànni leen ci biti Barthélemy Diaz moo leen mujj héberger fii ci benn école bu nekk Mermoz defoon nañ fay conférence de presse ànd ak ñoom xeex xeex bi ma interpellé ci gouvernement bi TF 804 et 44 17 DG bi nga xam ne coopérative d'habitat comico la ñu waxoon mujj gi ñu ne dañ koy jox ay privé yii yëpp am na fi waaye yemul ci loolu ñu jëlaat ay immeuble daat koy dem jox ay baux ay baux emphytéotique mooy loué ko ay nit pour 99 ans te loi dafa ne ab immeuble bu état moom munoo ko loué lu soo koy loué nit délai yi c'est entre 18 ans mooy fukki fan fukki at ak juróom ñett ba 99 ans ci délai boobu nga ko mën a lu ba ba ans du moins muy juróom fukki at mais mënoo loué nit 99 ans loolu la la loi da koo tere Sénégal ñoom ñu dem jël ay nit dinaa leen citer immeuble yi te pourtant lii lépp biir ville la wetu hôpital la Dantec li tax bu dante gën a garaaw mooy impact bi mu am ci paj meeg ñoom seen mais yëpp am na ci yoo xam ne dafa am impact social boo ci boolee nag impact bi mu am ci patrimoine u état bi ñu jël di ko sa sa sa saaxee boo jëlee titre foncier 2863 DK mooy immeuble Brière de listre defe naa ñëpp xam nañ ko fi ñu jël ko jox ko société bi ñuy wax Sénégindia Sénégindia pour 99 ans nga jël titre foncier 26 83 DK mi ngi à la rue Carnot nga jël ko jox ko benn société bu tudd Sénégal Hôtel Invest pour 99 ans nga jël titre foncier 54 21 mi ngi rue Clébert nga jël ko jox ko société bi ñuy wax Sénégal Global Solution nga jël titre foncier 49 82 jël ko moom tam mi ngi. rue Hachimou Tall angle René Ndiaye nga jox ko société bi ñuy wax Fleur Sassou enfin immeuble li nga xam ne moom fa la direction de l'élevage nekkoon également yooyu yëpp Macky Sall ak nguuram jël nañ ko tey la ko jox ko ay nit question écrite baa ngi ni maa ngi ko bind vingt nous sommes en 2022 j'ai pas encore reçu de réponse du gouvernement du Sénégal waxtaan nañ waxoon nañ ci waxaat ci publiquement te loi li mu wax te foofu moom moo am solo man mënuma dugg ci considération technique yi waaye xam naa ni tëj hôpital moom te waajaloo ko am na ko proverbe bu naan boo tëjee hôpital ubbi nga ay bàmmeel tëj hôpital te waajaloo ko mooy ubbi nga ay bàmmeel à côté waaye li am solo mooy code du domaine de l'État bu 1976 dafa wax lu am solo dafa ne ab terrain bu état bi moom bu dee am na ay tabax yu ci nekk état bi mënu ko jaay lu dul assemblée nationale moo voté loi déglu leen ma bu baax même su dee mur de clôture rek moo ci ne état bi pour mu jaay ko il faut mu dem assemblée nationale saisir assemblée nationale assemblée nationale voté une loi buy daan autorisé nañu ñu jaay immeuble bi lu ko lu ko may rek mënuñu koo jaay. moo tax ñiy joxe te waruñoo joxe ja euh, respecté wuñu yoon dinañ ko layoo ak askanu Sénégal devant la justice waaye ñi jënd ci anam boo xam ne respecté wu yoon nañu xam ni ñu ngi jënd jaan ci pax ndax dinañu xool déjà lan la mun a def dans le cadre de l'Assemblée nationale suñu juriste yi dinañ ci liggéey waaye gën saa gudd 2024 ku ñu fi joxoon lu askan bi moom te jaarul fi mu war a jaar boo fa tabaxoon gratte-ciel tamit dañ koy nangu dama bëgg mu leer nañ nañu dégg bu baax ku ñu fi jox ci ay njuuj njaaj loo xam ne jaarul fi mu war a jaar te askanu Sénégal moom ko ak loo fa munti investir bu ñu jëlee réew mi dinañ ko delloo si ci ci askanu senegal parce que tappale gi dafa war a jeex ci loolu laa bëggoon daanelee di gërëm ñëpp ci déglu bi di leen sant